jërëjëf mbokku téléspectateur yu Bantamba TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu amaat mbégte ak kontaan bu baax a baax jàkkaaroo waat ak yéen ci biir Bantamba TV mbokk yi ku ne xam na ne saison bi tëj na waaye saison bu tëjee coow li def fii des tey ma ànd ak leeg si ànd ak Bamba ñu fas yéene bëgg leen teg yéen ci wàllum li nga xamante ni moom mooy saison bi saison bi tëj na lii lañ doon ñaan yàlla mu ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim waaye tamit génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag tey dañoo wàcc ci terrain bi fas yéene xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy amateurs yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy suivre làmb ñu wax ñu saison bi nan la ñu ko gisee combat yi dàq ci année bi waaye tamit tuus yi dàq ci année bi yan combat lañ fi taxawal yuñ gën a sentir ah yéen écurie ñoo gën a yëngal lan yooyu yëpp dinañ ci ñëw ak yéen man ak Lex nag ñu war a fas yéene bëggalante ak yéen ci wàll woowu nañ dem ñu xool mais jaw a ngi noonu de jaw dégradé jaw dégradé moo nekk noonu eh mais scooter laay seen de eh scooter eh doomu dëkk baa ngi nii Karbala waa doom day ci loone dañ si jaamu. kii nga yeb xam nga ko. waaw. kii kan la. kii may Karbala. fu dëkk. ah Pikine. yow dafa leer. ci loolu. maa ngi sant Serigne Touba bu baax. mais tey damaa ñëw doon doon dox tombanteeg ci yow laa njëkka a dal. nga yor scooter bi di doxantu ak loxo bi naka loxo bi. waaw loxo bi mu ngi tane bu baax. équipe Bantamba bi yëpp seet si nañ la ci sa loxo waaw maa leen di maa leen di kii bu baax. waaw di ne rafetlu naa affaire bu baax a baax baax waaw loxo bi moom mi ngi tane bu baax. mi tane bu baax waaw waaw. lu gars yi wax tojaguñ ko. gars yi non tojaguñ ko xam naa semaine prochaine incha allah. Hmm. waaw da ngaa xeex da ngaa bëri mais benn instant xam na ne loxo bi damm na mais yaa ngi continuer di xeex ba léegi lu waral loolu yaram bu tàng la wala tamit yëpp sa adversaire la. no yaram bu tàng la parce que des fois xam nga mbër di ngeen di ngeen waxante loo xam ne tey dara du fa nekk lu dul jëf parce que ñun ay xale lañ euh, te làmb la ñuy def parce que làmb dafa am làmb bu nekk fooy wane sa bopp nga njàmbaar njàmbaar kenn du ko forcer day nekk si yow quoi xëy na sama njàmbaar la sax moo tax ma ñàkk làmb mais làmb mën jeex. mais blessé naa maa ngi yëg métit teewul maa ngi foncé maa ngi dem maa ngi ciy génn xam nga loolu yëpp peut yëfu xale la rek mais prochaine fois ñaanu ma ko yàlla bu ma dalee ci biir géew mën naa am yeneen affaire yu may def waaw parce que mënoon naa ñëw sax bëre si mais xam nga lam premier grand combat la diisoon na diisul xam nga ñëpp ñu ngi doon xaar Karbala est-ce mën na cee génn wala combat bi tey mën bu demee benn song lay jeexee ñu daan ko mu ñu ngi sant yàlla xëy na yàlla lii la def si ñun préparé nañ ñu war a def mais dañuy dem tey waat wutiwaat doole lu ñu manqué ñu wutiwaat ko ñëwaat incha allah fay seen fay bor bi suñuy support ak képp nga xam ne ñu ngi lay bëggee. saison 2022 2023 nan nga ko jàngatee. saison bu neex macha allah. saison bu neex def na stand by ci koor gi defaat na stand by plus de ay 1 mois 15 jours manifestation yi mais lépp sant yàlla la waaw yaakaar naa ni chaque année combat day gën a yokk parce que buy dem ba août août te mu doon tëj juillet kon loolu sant yàlla la. waaw espoir yi tamit bëri nañ ci am na ay espoir yu bëri am na ay combat espoir yu neex. yan booy nga ci jot a xam ci ñoo xamante ni def nañ ci lu am solo. Euh, combat Karbala Fëgala bu Ngor. Karbala Fëgala bu Ngor waaw espoir la. waaw ak combat Bouba bu yëmbal ak. Euh, euh, kii ni ma Abdou Ndiassé numéro 2 parce que yooyu boo xoolee ay grand ay grand spécial la woon mais spécial grand combat la mujjee parce que grand combat bee yàqu. waaw mais combat Karbala bu Rufisque. Mhm. ak Feugeleu bu Ngor mooy meilleur combat espoir waaw. mais ban tuus moo la gën a neex ci saison ren bi. Euh, tuusu Boy Niang contre Balla ak tuusu Mor Kankang. neel madame Badji mu jox la ko. waa tuusu madame Badji jox ma tuusu Boy Niang contre Balla boo pare nga jox ma Mor Kankang contre Youssou Ndour tuus loolu am na solo nga ni. waaw damaa jox Modou Mbaye. Ah. affaire yi yokku. Ah. kon ma tase ak Bamba. Ah. dama koy jox paasu maagal. Eh, eh, eh, li neex na waay. waaw. <laughs> Magali. <laughs> mais ci loone sant nii rek. am nga jàmm. am naa jàmm. kan mooy sa mbër. Baba Jaxal. Ah. wëndëng bi. Ah. waaw. lan la gën a neex ci loolu. lépp bu dugg see xale yi kontaan mag ñi paay yi ñëpp. kon ñu dem Lex. Lex ak Bantamba bëgg leen tag yéen saa su ne nii rek lay demee barki Sëriñ Bamba da ngeen di wax combat yi ngeen di bëgg ñu leen koy jox ñu bëgg leen tagg yéen eh boy boy ci loo ne maa fi. am nga jàmm. waaw. yaa ngi seetaan lamb. waaw. kan mooy sa Ambras. Ambras. kan la kan la dajeeloon. étoile bu bu Jolof. étoile bu Jolof. ne ñu jox la combat bu Jolof ak ak ak ak Ambras. jox ñu ko. ñu seetaan ko. waaw nañ ko seetaan ñëwaat. macha allah mbokk yi combat spécial bi moo nekk noonu. ndeysaan Ambras moom moo koy bëri ak étoile Jolof. Amourage mbokk yi moom moom moom moo nekk à gauche xaw nu wan ginnaaw Étoile Jolof nekk à droite ñu xaw a jàkkaarloog moom ndeysaan Étoile Jolof ak Amourage ku ne sa tànku ndeyjoor nga jiital ci seen gàllaaj am na ci couleur yu nduroo verte bari na ci ndeysaan ñaari xale yi ñu ngi ci digg géew bi. xajam nañu xajam nañu xajam nañu de. xajam nañu waaw. Ambroise xajam na. Ambroise xajam na. Hmm. Ambroise naanaan la ci victoire la jógee. waaw taxaay yi bari na. te diisee na suuf. te diisee na suuf. diisee ah, kon liggéey na tànk yi. liggéey na tànk ak fes yi. ah. xam nga lu am solo muuru ci làmb. waaw mooy fes ak ndig. ah ndig. ginnaaw bi fii fi ndombo di. tegu doo leen fi toog tey. fi ndombo di toog fi ndombo di tegu nii. ndig dañ ndig dañ koy jóob. waaw dañuy joob ndigg kon fes day am doole fes doole daa war a am doole boo jëmee suuf fes moo la siy génnee ah dégg nga loolu mbër dafa war a complet man liggéey dinaa gën a liggéey sama fes yi ndax ma gis tey xeex taxu koo jóg de amourage loolu nga foog jàpp jàpp bëre la gën a bëgg loolu nga foog waaw ah. loolu tey loolu la indi tey loolu la indi ci li ma gis waaw tey xeex taxu koo jóg bëre la bëgg moo tax muy arbitre bi moom daa xaw a sévère. kii kii moo gën a sévère ci arbitre yi. moom deux minutes ngay wër benn tour ngay wër rek mu arrêté. mu arrêté waaw attention étoile Jolof Ambroise. ñemente nañu de. Ambroise yi bàyyi baa la wax rek Ambroise suuf la jëm de. day bëri ci. gisoo kee da koy woo ci xeex sax waaye di ko wuyu. day sóob nii rek mën na sànni ku waaye gëmu ko. li mu bëgg mooy jàpp rek. Uh-huh. ñu xool fu wànnan di mu jékki gëtëm. ndeysaan Ambroise ak étoile bu Jolof ñu ngi lewtoo étoile bu Jolof da ngay wàcc ba jéem a toll moom moo <laughs> ah, waaw eh. waaw jàppante ay eh, jàppante nañu attention Ambroise xeex. xeex épercule kaawoo lu xew waaw kor. dóor étoile Jolof a ngi jàpp rek kor attention kaaw bay bàll étoile Jolof a ngi ut rek. waaw mi ngi ut waaye Ambroise a ngi dóor kay. Ambroise a wóoru suuf gi moom ëpp. waaw wóolu na suuf gi ba mu ëpp. li est-ce que wóor na. mais mais mais liggéey na ko waaye wóolu na ko. étoile téye na dafa mel. jàpp na bu baax. am na lu mu bëgg. étoile Jolof mi ngi dóor moom it. Mamballa fii. ndeysaan bu ndengeñ duggee rek mooy tëj nga lamb ji yow tëj nga combat bi. Oh. ah. mooy tëj ñu la. taxabal ci lamb la bokk mooy tëj ñu la. ndeysaan non non fii fii fii Ambroise mën na ko xëcc tas ca xabal wéeru est-ce que du loolu lay wut loolu la bëgg de laa ilaaha illallaah na ca xabal ba fàq na ko Ambroise <laughs> ndeysaan loolu Ambroise def tay ah ah Ambroise dafa ah, dafa wóolu boppam moom nii la mës dafa wóolu boppam attention Ambroise waaye wóolu boppam wóorul wóor wóor sa bopp wóor maa la wax lii wóor sa bopp wóor kenn du wóor sa bopp déedéet da ngay jox cër sa adversaire da ngay jox cër sa adversaire. sa adversaire mënu sëq sa ñaari gañoo. nga nga sigi nga sigi nga sigi koor ko. ba pare di ko fàq sa kaw di xeexee benn loxo. ba pare di ko fàq sa kaw. respecté sa adversaire. et waa di Jolof ne woon na ko xamoo ma. Ambroise lañ daan jël bu rëy. waaw nax na ko ba daan ko. et waa di Jolof moo ko daan jël bu rëy. nax na ko ba daan ko. ndax na ko ba daan parce que ambulance daa jolof ci bëri bi. di bëre bàyyi ak moom sa bopp. xoolal lii ak rafet. waa jëlal bëgg naa man mouvement bi. mouvement bi rafet nañu. Ah. kayma isaab. waaw. ndeysaan Edouard Jolof mi du ngaa ka déedéet. xanaa gisoo bind bi. kii day doon mbër. bon day doon mbër champion la. ziar yaa ngi en direct Bantamba TV. nooy waajee ah, xanaa préparer bernde yee jox booy seen paas. waaw képp koo xam ne nii tane nañ la paas ñu jox la. am na ñoo xam ne dañuy safat fii fere fi lu bari. Mhm. ñu ñëw màggal xonam sax duñ ko yóbbaaleel borom dara. loolu nag man moom d'accord ma parce que man bu ma sañoon maanaam xaalis bi ñuy liggéeyee Dakar ñu dajal ko yóbbu ko Touba. waaw foofu màggale foofu mu màggee foofu. mu màggee foofu dégg nga loolu Lex Lex am na ñoo xamante ne bu ñu ñëwee lu ne la ñuy def ci safar gi jënd otees jënd nag jënd xar jënd ay ginaar yooyu yëpp ñu def ko def ko ci safar gi waaye bu ñu dem Touba du ñu yóbbaale dërëm dañuy ñëw tëdd ci kaw lal yi xam nga lu ma la sangu-sangu gi lekk-lekk gi demaat ñibbi bàyyi borom dal bi moom ay problème loolu du yoon ah booy màggale jëlal ay bagages yoo xamante ni nii borom dal ba daf koy soxla nga yóbbaale ko ah ku baax waaw noonu la demee waay eg si gis nga ba léegi dañuy dox ànd ak yéen di dem mais eh mais yaay booy yaay mooy la maay kumba mu Serigne Fallou. yaay nooy dundee màggal nu ma koy dundee. chaque jour rek man màggal la ci man. waaw chaque jour màggal la gisoo ma. mais xoolal la nga sàjj yaa waaye waaye Serigne nii lay mën Falla Awa Bousso baarama ci kàddu gi bàyyi mais nooy dundee màggal màggal gi waaw ñu ngi sant yàlla nag di ñaan yàlla ñu fekke ko ci jàmm buñ ko fekkee yàlla ñu ko tal yàlla may ñu ay koppar yuñ mën a màggalee yuñ mën a berndeele ñu mën a jàppale jaamu yàlla ki war a dem màggal lan moo ko war sell yiw baax teeru gan ñi tatagal leen lan ngay wax waa Touba waa Touba di leen wax ne nañ génn néegi jox gan ñi rek nañ génn rek wàcc lal yi jox gan ñi comme d'habitude rek noo gisee noo gisee Bantamba ah, macha allah ca kaw ca kanam di ñaanal suñu père rek père kii père Bakaay gudd fan ak wér man daf maa neex eh. man kuy wax lu baax rek bëgg naa la eh? barke sëñ Fall waxal père Bakaay mu may la benn combat nga seetaan ko père Bakaay may boo bëgg nag bu ma bëgg ah, waaye man li ma ci jaaxal benn mbër laa am mi kan sëñ Fallou eh waay. rek ma jaar mais ci aar. sëñ Fallou rek. lépp sëñ Fallou sëñ Fallou rek. eh sëñ Fallou waay. mécanicien yaa ngi nii ñii ñii ngay gis nii dañuy dund làmb mécanicien yi dañuy dund làmb wala dañuy dund làmb ah ci loole maa ngi am nga jàmm. waaw naaj. kan mooy sama. man aw ma mër la. Ah, loo am. Zor. mooy kan. <laughs> Ah? Messi. Messi. waaw. Messi tur dëggal nan la. Lionel Messi. xaw ma ko de. waay booy. Eh, mécanicien yi. Eh, ci loo sant si borom bi. am nga jàmm. jant sant yéen bu wér. noo gisee saison bi. saison bi nag bëgg naa dégg dëgg. neex na naqari na. parce que xam lu ko yàq chaque fois. jeunesse bi jeunesse bi. affaire Sonko Ousmane Sonko Adji Sarr moom moo yàq làmb ji wàññi doole ji. ak violation bi barke alxuraan. Oh. non neexul na grand gouvernement bi ñoo war a jàppale gars yi comme ci actuellement ni coow yi daa bëri nañ arrêté làmb ji arrêté football bi concentré wu ci nawet bi ci xool évica euh, doodaan yeeg kamb yu bon yi. mais saison bi tëj na comprendre nga saison bi tëj na léegi loolu weesu lañ bëgg a xam yan yan yan mbër ñoo ci gën a avancé ñan lañ ci gën a xamaat. Ah, am na tuus yoo xamante ni am na am na ku ci gën a neex la tey jii boo ci amoon koo ciy wax koo ci gën a gis lan la booy lamsaar bi booy lamsaar bi kan la ci ah, njaago mi ñu tudd Luis waaw ak euh, Baba Baba Jaxal waaw ok le phénomène donc jàmbaar la lu neex la ñu bàkk dañoo am sañ-sañ daal dañoo am cas waaw waxuñu may la ko ah may ma tuus bi yow Njaago loolu neex na ma trop jox ko mais naa wax leen de saa yi dafa dégg de barki Seex na Seex Saad Bou. waay waay waay waaw waaw. baatee. ba ca ginnaaw ak ginnaaw. seen maam ah seen seen ceeb maam. seen maam dafa ko jotoo ko. ah moo la jëriñ booy. baax na. la ilaha illallah.